bu nekk la nga xamante ne bu ko nit ñi déggee sax dañ naan ndax lii dëgg la am du dëgg muy jalook bi nga xamante ne ki di njiitu réew mi woote woon na ko gannaaw ba mu dàqee élection présidentielle li ne du mën a am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu daal di nekk ki la di Pierre Atepa Goudiaby ak kile di alintin ñoom nag Thiaré FM la ñu daal di woote ne kile di Ousmane Sonko ak Macky Sall ña ngay discuter maanaam daal jamono jile ña ngay dialoguer gannaaw ba nga xamante ne gis nañ ne Cheikh Niass nekk euh, PDG bu groupe Walfadjri moo ubbi bile dialogue ba ñu delloowaat ko licence am ba jamono jile nag kile di Ousmane Sonko nekk njiital ex Pastef ak kile di njiitu réew mi Macky Sall jamono jile ña ngay dialoguer ki nga xamante ne nag mooy Pierre Atepa Goudiaby ak kile di Alioune ñoo ko daal di confirmer gannaaw ne nag ñu bëri dañ ko doon laam-laamee jamono jile nag loolu dafa nekk ab information bu wóor maanaam daal boo sàgganu diggante euh, kile di Ousmane Sonko ak Macky Sall gannaaw ba nga xamante ne nag depuis ci atum 2017 ba Ousmane Sonko nekkee ab député ba tey jile ñoom ñaar neexoo wuñu ba euh, kile nag di Ousmane Sonko sax doon woo di Macky Sall ci ab gatsa gatsa gannaaw nag jamono ji la ko defee ab mandat de foofee ca Cap euh, Manuel waaye nag bu dara bett ci mbir mi ndax Euh, kile di njiitu réew mi moom moo woote ab dialogue gannaaw ba mu dàqandee lii di élection présidentielle yi nga xam ne jàppoon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi la ñu daal di nekk daal di jël ab projet nag daal di koy yóbbu ci assemblée nationale député wàllu Sénégal ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar daal di valider euh, bile euh, décret ba ñu dàqandi élection yi daal di koy jàpp fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2024 ba tax nag jamono ji la ñu nemmeeku yenn ci ay manifestation waaye nag nag bu xale yi di manifester ci biti ñoom politiciens yi ña ngay làqatu dem di def ay waxtaan mu mel ni nag dañuy war a taxaw seetlu xool bu baax fan la Sénégal di euh, mujjee ndax jamono ji la daal li nga xamante ne rek moom mooy ñi sàngoo euh, deru bëy te bukki nekk ci ñoom